maaleykum salaam. góor gi yow tribunal la. Cheikhou Niang. Cheikhou Niang mën nañ xam yow man ñu mën a wax ci élevage kenn nga dugg ci élevage ak fan nga tàmbali élevage. waaw man élevage maa ngi ah, maa ngi am kër 82 84 ma commencé yar. ma gagné concours Sénégal maa njëkk a gagné concours Sénégal. Ousseynou ma ko wooyee mu wóy na su Ousseynou mu ne mbee supermarché mu njëkk a kebe. te Ousseynou da doon gunge de xar bu ndaw la da doon gunge moo gën. mais Ousseynou boobu est ce que laadum la woon wala jamono jooju laadum amul woon. non jamono jooju boobu laadum amuloon waaye xam naa ne métis la woon xar bu rafet la woon noir et blanc bu rafet boobu laadum amul woon mais laadum la rek laadum la quoi. Ousseynou boobu nan la ñëwee woon ci yow. Ousseynou moom ni mu ñëwee woon ci man dama jógee xam nga man bi may yar dama commencé def ne xar bu weex bu rafet moo ma dem jënd xaru Casamance bu weex. di top top bam am dom amat dom ma joge tol rek seen tamu yi di yow ben ladum ci ben kër jënd ko quoi ma balé ben ban ko pare ma dox top su gannaaw ne leen jaay nako ñu jaay mako muy mu ñu koy wax sax muy ciulul ciulul quoi ben ciulul ma ko bi am dom dom bi sut xari mané c'est pas possible xar bu baax baa ni nii ndeke ma jaay xari yi mas yo bayiko non la commencé am ladum mais tey instant bi ci xar fi fi élevage toll ak xar yi niy dégg turi yow ban xar nga xam ne boo xam ne jaar na ci yow boo xam ni siiw nañ Sénégal. waaw xar yi siiw ci man bari nañ trop trop trop macha allah léegi Nicolas jaar na fi Ablaye Wade jaar na fi ministre Omar Sow no président Omar Sow jaar na fi li ma am ci xar yu góor yu champion yi fi jaar bari nañ trop waaw. élevage yow en tant que mag doyen ci fi élevage toll nii ak euh, euh, laadum yi fi ñu toll yow noo ko gisee. waaw laadum fi ma gis moom laadum métti na ndax lu tax mu métti laadum dafa naqaree jaay laadum xaay bari moo ko jënd te laajum xont bi dafa cher suñ problème daal ci laadum daal mooy état war na ñoo dimbale aussi parce que nit ki lu muy liggéey war na caa am dara. nit ki lu muy liggéey war na ci am dara war nañ dimbale éleveurs yi ba nu mën a jaay seen xar yi waaye at mu ne laadum lambu laadum lambu bu yàggee ñun Sénégal dañuy am euh, euh, gars yi dañuy bàyyi. mais est-ce que du éleveurs yi ñoo cher laadum aussi est-ce que waruñu ko gën a wàcc prix bi. non non seerluñ ko sax quoi wax dëgg yàlla seerul quoi parce que laadum deux cent cinquante mille trois cent mille quatre cent loolu dara daxu wax dëgg yàlla loolu baaxul. léegi fiara bi tey la ma fi sa tànk. non fiara bi wax oh, deug yalla yal na yal na yàlla dolli xew la ah. feera bi macha allah ñun luñ ñu ngi ñu koy defal quoi lepp yomb na ci ñun ndox mi yomb na ha ah. ripaas bi euh, ripaas bi daal mo moo xam benen xar bo xamne du laadu ban xar bu jigen mo gën nga boko bolé laadu mu booleeg xar mu bax wala ya bo bo bo mo ni am dal da ngay am akawak bu jigen nga bolé ko laadu nga mën am dara mais boo amee tubaab yi euh, boole ko euh, ak wax itam doo am dara ak wax daal nga mën a boole ak laadum nga am dara mooy métis bu gën a bu gën ci métis man yaakaar naa laadum yu baax yëpp seen maam la woon dafa yàgg nag man ak wax lañ ma di ko laadum ma di ko laadum ba tey yàlla def ci ñuy génn ay laadum voilà. ñu ngi lay gërëm di la sant. Ah, merci merci may boy. maaleykum grand na nga def waay. maaleykum salaam ku ñu ngi lay ziare bu baax. tur bi la. maa ngi tudd Ndiaga Fall ñu gën ma xam ci Ndiaga Ladoum nekk bergerie Adja Tabara Ndiaye Rufisque 2 ñu ñëw fii ci PRA bi pour wane suñu succès daal. bergerie Adja Tabara moom mu ndur na loo xam ni peut am nañ liggéey bu am solo bu ñuy def parce que bu ma gisee euh, sujet yi xam naa ne yéen a liggéey dëgg-dëgg na euh, kañ la bergerie bi taxaw ak pourquoi boobu ba léegi xamuñu leen. waaw bergerie bi yàgg na trop mën naa ni léegi mu def 15 ans parce que kii ko moom ñu koy wax Papis Ndiaye. su ma juumul li ma def ci élevage bi lu mat 15 ans mais nag euh, dafa dem ba ci biir ñuy ñëw accompagner ko ànd ak moom pour ñëw dooleel ko war ne affaire bi kat euh, du yoon bi mu jaar mu jéem a xool beneen yoon bu gën a ci kanam jaar ci boobu loolu moo waral mu jógaat beneen jógin daal. Mhm. mais euh, sujet yi ma fi gis nii bon nekk naa ay sujet yoo xam ni rafet nañ trop mais naka ngeen def ba dajale lii quoi ba ngeen ñëwaatee ci ban fan ngeen jaar. waaw mais boo boo ci nekkee da ngay xool li xew nga ak moom dafa ñëw. yow yaakaar naa fan yii maa koy wax li ñu génne ci xar war na mat minimum 75 xar génne nañ ko yëkkatiwaat na lu jege 150 millions defar ko ci élevage bi pour gën a raas gën a defar dem rek jënd nañ benn maal boo xam si wax dëgg yàlla dama ne woon dama ko def surprise sax ko wax kenn muy docteur Fall ñu def ko à 17 millions. parce que loolu du caaxaan daal wax dëgg yàlla kon loolu rek mooy wane ni am na feneen fu ñu bëgg daal. Mhm. ñi ngi ak Aliou doomu Lat Soukabé la Lat Soukabé ko xam-xam ni petit kifa moko jur Aliou Fiara biñ taxaw ni jël na fi deuxième Foire xaar yalla bi passé mom mo jëlone premier mom mo taxaw ni ñi ngi fak aussi wenn surtout macha allah yor nañ ci doomu Baro Baro doomu na doomu Kumana Kosro yor nañ ci aussi doomu Soloy yaakaar naa sujet yi xew yëpp ñun ci loolu lañu dox dal wax de yalla tayit élevage duñ ci kan yag nañ ci trop te xam nañ fi jëm xam nañ liñu def aussi waaw boo gisee man la bergerie bi dañ ko dañ ko saytuwaat defaraat ko pour mu jaarat beneen yoon loolu moo tax tey jii ñu génn pour ñëw Fiera yaakaar naa bergerie bi foire Tëngéej li jëkk bi mooy deuxième fois bi diggante foire Tëngéej ak léegi yaakaar naa doxaat na yeneen jéego te incha allah bis bu ñu dajawaatee di nga xam ne am na lu ñu bëgg tam na fu ñu jëm incha allah. Mhm. mais ci ci côté production ak côté jaay foo leen toll yéen a ngi jënd wala si yaa ngeen toll wala ngeen. non dañu toll ci defar te yàqamti wuñ fi ñu jëm incha allah waaw lan mooy taxawaay dañ koy sant rek di ko gërëm di ko ñaanal yàlla parce que xam nga lu mel nii nga jël ko teg ko ci ay loxo doomu aadama bëggoo ji feeñ xam nga yaakaar naa lépp su ci loxo Baye Sall la man te loolu ça fait plaisir loolu yàlla élevage mu neex ak mu neex nga jël ko gis ay doomu sant ko ñaanal ko yàlla moo xam li mu bëgg ci élevage suñu borom dina ko defal parce que nit ku baax la wax dëgg yàlla te euh, du ànd ak nit di la gës wala muy xool lii wala laa nii la def wax dëgg yàlla lu mu la wax rek loolu moo nekk ci moom am nañ ci mom bu baax baax na ñi ko ñaanal bu baax yalla defal ko jamm limi sen ci élevage bu soobee Serigne Touba dina ko ci am inshallah allah te man xamna lolu mais xontu be topato bi metti na wala métti. ngooñ agripass metti wul yalla moko yor te yalla mi ñi ñu koy jagleel. Mhm. bëgg ñu ñëwaat xool bergerie yi fa la toll. dinañ yaatal wax nañ ci te dinañ ci waxaat incha allah bis bu ñu def plateau di nga xam ñun amna luñu bëgg te na jëm aussi. merci. nek bergerie Seydi Jamil loo loo loo ñu présenté. waaw tey maa ngi leen présenté eh, ñetti sujet benn bi mu ngi bokk ci Bachir benn bi mu ngi bokk ci Saalum Saalum benn bi mu ngi bokk ci booy Séeréer bi moom mooy laman laman bu booy Séeréer surtout surtout ado waaw surtout ado oh. waaw bii moom eh, dañ koo jënd dañ koo jënd waaw mom mu ngi ci 13 mois ak ban ak ban maal. ak euh, Erdogan bele mom ñoko ko juddulu moom doomu ki la euh, doomu Bala Maysa la bay Bala Maysa doomu Tayir doomu Bala Maysa la Bala Maysa doomu Tayir la waaw Erdogan ñu ñoko ko juddulu ñoo indi waaw. wa ba Seydi jamila indi ak euh, bi tamit seut salum salum bi so gisee ben doomu salum bu jigen moko jur bu ñu wax ak moom ñoo ko jur daa mooy noir et blanc bi ngay gis borom rob borom rob bu noir bu blanc ba la nga gis mooy Erdogan moom surtout ba ñun ni ñuy liggéeyee mooy ñun dañuy li ñu gën a opté woon doon ci liggéey mooy ci auteur la ñu gënoon doon liggéey boo gisee Belgérie Seydi Djamil yaa ngi dégg kon fu ñu waxee auteur muy ci femelle muy ci mâle Belgérie Seydi Djamil ngay xalaat parce que mâle bi sut ci Sénégal fi actuellement nii foofu la nekkoon muy Mbargaan moom bi 1 euh, mètre 15 Margan dafa daanu daanu na tànn euh, def na deux mois def na deux mois oui. avant muy daan waaw liggéey na nañu boo gisee tëng bi tëng bi ngay gis ni doomu Mbargaan la am na fa tamit ay doom yu góor am na fa ñaari seex yoo xam ne ak famille bi taxaw nii sama wet waaw am nañ fa ñaari seex yoo xam ne daal macha allah taxawuñu quoi feraguñu sax gaa yi jënd leen waaw. FERA bi ñun li suñu xalaat mooy organisation bi jaar na yoon di remercier waale waa des yaa ngi dégg vice président Djibi Wade président Omar Sow mais vice président Djibi Wade bi nga xam ne tamit moo yoroon organisation fois e kii bi FERA bi lépp ci loxoom lañ ko tegoon ñu ngi koy remercier parce que affaire yi nice na macha allah oui. dañu léegi remercier. na def. sant alhamdulilah. tribunal la. Gora Gueye. Gora Gueye fan nga jógee. maa ngi jógee Pikine ginnaaw raay. ba Zéry Pape Ndéla Sarr. waaw ma ñëw exposé fii à c'est la première fois nag waaw ma ñëw exposé. mais tey bergerie Pape Gueye bi lan ngeen fi indi ban ban ban maal ngeen ñu indi. waaw ki ñu ngi indi top 5 kii doomu sëtu alhamdulilah benn maal benn doomu alhamdulilah moo ko jur bu jógee kër Mawone ak Maris waaw moom moo ko jur waa waaw sans macha allah bi la waaw. mais fan toll ci avec yéen a ngi jaay wala yéen liggéey. waaw si liggéey lañ toll rek. waaw instant bi moom waxaguñu xaalis dañuy liggéey parce que kanam rek parce que àdduna lépp loo gisee liggéey la. waaw ah, dañuy liggéey parce que kanam yàlla baax na daal ñu ngi liggéey. mais instant bi day métti liggéey bi nii la métti de. waaw métti na trop métti na mais xar-xaar la tudd waaw xar-xaar la tudd liggéey bi si kanam la mais du léegi quoi mais nga nga indi loo xamante ni lu baax qualité moo gën daal waaw nga indi qualité moo gën. noo gisee noo gisee Fiara bi. waaw Fiara bi neex na waa c'est la première fois nga ñu exposé di fi amee expérience xam nga di nga fi amee connaissance xam nga ñoo musul gis leen gis xam nga di nga lu bëri daal pour beneen yoon tam di nga natt doole ak par rapport yeneen gars yi boo gën a waaw boobu ci gën a liggéeyaat bu baax. mais looy wax sa morom éleveur yi chéré te xar yooyu lan la looy conseil gars yi. waaw gars yi ñun ñun nañuy nañuy nañuy suñu biir rek nañuy jàppalante suñu biir éleveur bu ndaw amul. éleveur yëpp ay éleveur yi ñëpp ay éleveur ku jël ku jël ay ay millions def ko si xara nekkatoo éleveur bu ndaw kon éleveur bu mag nga kon nañuy jàppalante rek ñu bëgg a dugg tamit suñu morom yi bëgg a ñëw te amuñu moyen ah ñu ñu dimbal leen te yàlla tax ñu dugg si rek ah, waaw affaire